tey dañoo ñëwoon daje ak waa CNG ah Assane a ngi pap euh, ki nga xam ne mooy Aline Gueye ah Boubacar Nia moom journaliste waaye nag bu leen fàtte promoteur la jàkk sa ngi nii taxaw euh, le promoteur des grands événements le simple surtout euh, ki nga ne moom mooy Kandji Pape Abdou Fall suñu président ah Fallou Ndiaye jàkk si ñu ngi la nuyu. ñu ngi leen di fay bu baax a baax. waaw mais seen réunion bi tey nu mu demee. waaw dafa am lu ñu demandé woon CNG pour rencontrer leen.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 nañ ko dagg wàññi ko def ko mu nekk ay combat wu 15 minutes de ce fait ñun dinañ gagné boo xoolee ci ci 19 combats yi nañ ci gagné 90 minutes léegi 90 minutes yooyu ñu dispatché ko andiwaat yeneen 5 combats de 15 minutes mu nekk 75 euh, minutes donc boo xoolee en en en terme de temps euh, dinañ mën a am 15 combats ci biir temps wu 10 yi ñu daan am techniquement ci temps bi donc loolu lañ leen exposé.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 ak lan. sécuriser cachet yi ñuy joxe ci biir. voilà ñuy sécuriser aussi cachet yi nga xam ne dugal nañ ko CNG ba pare. ñun dañuy am suñu événement gars yi ñëw filmer ko dem def seen ay événement télé encaissé ay centaines de millions ñun duñ ci am dara. waa mbokk yi ñu ngi ak président Thierno Ka euh, président ngeen daje woon ak promoteur yi daan waxtaan ci ay ay quelques points pour gën a euh, améliorer li nga xam ne moom mooy làmb ji. lu euh, ñu daan def la nag ren dañu delluwaat ci. Euh, nañ ko daan defare maanaam woo ñi ñu war woo ñëpp waxtaane euh, nu mu tuddati euh, rapport d'activité def un bilan financier ni ngi dem waaye terewul kuréelu làmb yëpp ku ci bëgg gis CNG nga ñëw donc ñoom ñooñu ne woon dañu bëggoon gisee balaa ñëw commencé compétition yi donc ñu jàppoon bés bi tey donc moo taxoon ñu doon waxtaan donc lu du du guleet nag du guleet donc euh, dañ daan def bokk seetlu ñu daan wooye ay rencontre sectorielle maanaam euh, gisee ak amateur yi gisee ak président écurie yi gisee coach yi et cetera mais biñ demee ba direction des activités physiques nañu il faut que ngeen def assemblée générale euh, d'information mooy li ñuy def samedi ba la ñu génn donc ñoom problème yi ñu amoon yoo xam ne dafay laal ci affaire Euh, promoteur kese moo taxoon mu toog waxtaan tey. Euh, point yooyu xaw a bëri tuuti euh, tolloog set ak yeneen yi sax yoo xam ne peut-être junj nañ ko est-ce est-ce que yaakaar nga ne nañ ci am gain de cause. non amul gain de cause il s'agit pas de gain de cause de quoi que ce soit dañu ne dañu ñëw wax seeni mëbët mooy loolu bu ci nekk am na yoo xam ne yi tontu nañ leen ak yoo xam ne yi il faut que. bureau bi yëpp toog techniciens yu toog et cetera parce que ku ci nekk da nga ci war a am sa ca wàll donc yooyu dañ ko dax ba ñu commencé waat réunion yi bu boobaa ñuy jàppaat beneen bés bu boobaa ñun ñoo leen di woo comme ñooñu waxoon dañu bëggoon gisee ñun gisee nañu tey wax nañu seen i mbëbët buñ jógee waxtaanee ko ci bureau ak ñi ci ko war a waxal comme ça ñu ne leen nag léegi ñëw leen point sangam nii lañ ciy def point sangam lii lañ ciy def. donc voilà. rendez-vous boobu fooguñu mu yàgg noonu wala. ah non ça dépendra il faut que kooku directeur administratif moo koy gérer mooy gérer calendrier bi mooy mën a wax kañ lay doon donc euh, bu dee mën na nekk avant ñu commencé bëri xayrun bu ko mënul itam tout suite après nu mu gën a teey daal mën a nekk voilà. ñu profité saison bi ubbi na. mais ubbi na parce que yaa ngi ñu fekk CNG. bu dul woon loolu kay doo fekk kat mais comme ouverture administrative la rek ku bëgg a jëlee licence ñëwal ku bëgg a kër sàngam ñëwal mais euh, compétition yi généralement du ñu commencé avant avant novembre donc dara dara dara beesul ci côté boobu. Hmm. jërëjëf.